ci taalu bi yëpp. tey amoon mbégte nag ak cant ci taw feex yi ñu sëriñ bi defalaat euh, ba nu dajawaat euh, ñu di ko waxtaane ak di ko sant waaw ah, mën nañu jëriñ su fekkee mën nañ ko micro bi su defee retour bi moom lañ ko am

muy mbir moo xam ne da leen ko fàggaloon ci yàlla ne saa suñ koy def ñu ngi ciy dajeeg mbirum suñu borom saa suñ koy def suñu borom mi ngi yabal ay malayka ñu tiim ñu di ñu sotti waamewu xéewal fekk bàyyiwuñu ñoom duñu bàyyi kon ñu ngi ñaan mu saxal ñu ci te saxal ñu ci ak taalu bi faw ci ndimbalam ak yërmandeem mu mel ni waxtaan wi nag euh, fan ko tegoon rek lañ euh, koy tegaat jëm ci jëmmi sëriñ bi ak màggam gi nga xam ni ba àddina sosoo ba suñ jëmm yàlla tey lu nu lu ni màgge àddina mësu koo xam muy jëmmi Sëriñ Tuubaa nga xam ne lu fi sax fawu la te du fi ju mukk te saa su ne muy dimbalee bopp muy ci jëmmam xamal boppam kenn ku ci doon jàmbaar amul lu mooy ni moo la xamal boppam ci ndimbalam ak yërmandeem mu mel moom moom yi nag daa wàcc ci kaw suuf wax ñu li tax mu wàcc wax ñu programme bi mu tëral ci àddina wax ñu ni it fi mu bëgg jaar ak àddina te benn bu ci ne jëf na ko yëpp ba mu leer tey jii nag li ñu jikk woon tey bu ko waxtaane kenn suñu xam ak kenn kenn luñ ci sëriñ bi dimbalee mooy waxam jure yi nga xam ni moom la mujjee wax ak àddina nga xam ni loxo nday joram boobu nga xamni sa su bindi mbollem luy malaika daanu mbollem luy to dootoo dootoo and ak sa sago mboolem malayika yi nga xamni dañu dañoo anas dañu yëngatu ak di jaayu ndax loxo nday jor Serigne Touba ba nga xamni neena sama loxo nday jor bii sa su bindi neena yalla day day ci mbirum yu tedd yu kawe ya diko jur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax bit gu bit bég looloo tax mu ne yubashiru kalbaaxi bi xatti karamatan wa in kuntu an ardil madinati zallati loxob Sëriñ Tuubaa boobu biit wi mujj bind ci kaw suuf tey mooy doon suñu waxtaan ndax sëriñ bi kat dafay wàcc présenté ñu boppam kenn ku ne ci àdduna am na lu tax nga wàcc Sëriñ Tuubaa wax ak ñun ci li tax mu wàcc wax ni nit ñëpp kat nanu xam ni danoo am programme bu leen yàlla tëralal tax nu wàcc sëñ bi wax ceeg ñun bi mu waxee ñun li tax mu wàcc wax ak ñun programme bi mu am ci àddina ak fi mu bëgg a jëm ak àddina bi mu demee bay làq jëmmam it bàyyi noog aw bayit mooy bayit wi mu mujj bind ci jëmmam jooji di jëmm Ahmadul Xaddim di si Ahmad Bamba Xaddimu Rasul binde ko fii ci Njaaréem 1927 wax ak àddina ni kataballaahu tabaraka wa taala أن كاتب هذه العروف يجاور الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفع والجلب أربعمائة سنة بعد هذا الحق المحقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل سيدي تبعنا فهمي كتب الله تبارك وتعالى يلا من خمسني موم مو ام كتم موم رك ما يلا يلا مو دوغل تي دوغل بيا ni araf yii ngeen di jàng ngeen di ko wax ki ko bind day yu jaawirullaah tabaaraka wa taala fi moom dey dafa dëkk ak yàlla day dëkk ak yàlla fit dunya fii ci àddina moog yàlla dootum tàqalikoo lenn la ñuy doon waaye fii ci àddina daat ñii nag indil programme bi tax ñoom ñaar ñuy takkoo te dootuñ tàqalikoo fit dafay buñ fi wàccee nag ne fi ñaari mbir rek mooy doon seen yitte suba ngoon guddeeg bëccëg fi dafay wal jalbi fi dafay dañuy dàq wal bi dañuy ñoddi arbaha mi ati sanatin baxda hësal xatti ginnaaw mbind mi dana am ñeenti téeméeri at yooyu dañuy xëcc dañuy dàq ba noppi tey ñoddi balaa may ñëw ci lu ñuy dàq kat lu ñuy ñoddi nga xam ni Sëñ Tuubaa moom yàlla moom lu mu dàq mu dem waaye lu mu ñoddi it mu ëgg si suñ tubaab nee na nag mission bi fi des mooy di dàq tey ñoom di ñeenti téeméeri at waxaguma yan at la ndax yan at la balaa nga koo xam faaw nga dugg ci biir wax bi ndax ne wax jii nag wax jumu mën doon jumu suñ la koy misaal ci àddina day am lu mu wér mu dee ab jullit wax ju wér mu ngi koy taktaloo ci alxuraanul karim wala waxi yeneen bi nun nag waxi Serigne Touba ndax danoo xam fa wax yeey ba ko bu doon ci mbirum àddina xam nga ni këyit gum doon gumu balaa moo legal daa fekk ñu légaliser ko euh, copie pièce sax boo ko yoroon sa masalan sa carte d'identité wala sa passeport copie ba bu amul cachet am signature mel na ni mun tolloo carte d'identité ba lan moo tax mooy cachet ba moo koy dëggal sëñ Tuubaa nee na nag wax jii may wax su fekkoon dafa am cachet am tampon signature nee na tampon ba mooy tampon bi yàlla signature ba mooy signature yàlla cachet ba mooy cachet bi yàlla moo tax mu ne baax de xësal xattil mu xaq gi gannaaw mbind mii nga xam ne ki ko dëggal nee na mooy yàlla nee na ñu ngi ko dëggalee minal xaqil mu biin ci yàlla mi nga xam ne mooy dëgg ju biir jë wax jii ma wax nag benn mbindeef munu koo seere kudul yàlla seere woo wax ji moo lay wax ni wax ji fa mu ko waxee dul yàlla néew fa moog yàlla rek dafa ne wallahu ala ma naqulu ala ma naqulu wakilun wax ji ma wax yàlla rek a ko seere ndax min def na ci seere wax ji loolu nag di programme bu ñu Sëriñ Tuubaa tëralal programme bi mu ñu njëkk wax nag mooy wàcceew ma fi sama coobare bopp képp ku fi wàcc am nga programme man sama programme ak programme mu nit ñi ak mbindeef yi bokkul man yeneen bi sallallahu alayhi wa moo sàkku sama wàcc ci yàlla yàlla décrété ma wàcc ci kaw suuf sol fi ay mbubb feeñal fi ay melo wane fi ay maqama ak i way loolu programme yàlla la te yonent bee ko sakku yàlla dogal ko ma wàcc ci kaw suuf moo tax mu ne min ilahi kauni ni qaddimuhu wa abdallahi man sanna nii ayra mustafa fa inna nii aqdimuhu bi mustafa dëkkere ko def xaddimu rasul kon wax nañu li tax mu wàcc li tax mu wàcc bi mu wàccee ni mu koy doxale sëñ Tuubaa wax nañu ko te présenté nañu boppam xam nga bimu ñuy présenté bopam dani faraxtu iblisa wa jami'al mafasidi na nga yëg ni ki wax wax ji yonent bi neena na day tax nit diko ko ci xelam yoos wi su fi su nasi min al jinnati wan nasi taxawé melokanu nit wala melokanu jinni inna shayatin la yuuxuuna ila awliyaihim wa yujadilukum aw xane seytaane day wuyu nit yonent wax na ci hadith ni sitane dana daw ci nit ni deret di ci yaramu nit di wam mat ci ñawti serigne Tuubaa ne loolu nit ñi la koy def waye man faraxtu iblisa wa jami'al mafasidi seytaane ak mbollem lu yaq musuma takkoog mom bay tàqalikoog mom dawo suñ mbacke Juuf mu ñew mu ne ko mbacke Juuf xam nga lu tax iblis adina mënu ñu ci man dara mu ne ko déedéet mbacke mu ne ko ñom ñaar dañ leena sak ci sama kanam ko xam nak biñuy sak iblis te booba sak guñu adama yaangi tew koko mi ngi wone ni dama genn ci mindi fi sëñ Tuubaa ku ko bëgg a danga koy génne ci mbindeef yi dugal ko ci borom mbindeef yi ku ko fa tegagul waxtaanee ko sëriñ Tuubaa moom moom mi moo ñu ne moom daa dëkk yàlla axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan addina day yóbbul alaxira laa fi am ngir dimbali jàmm ñi malaktu nafsiya nag wa zahzahtu lahin maa moom sama nafs nafs gi nga xam ne mooy wommat nit ci ñaaw tiif mbaa muy wommat nit ci taqwa ni ma moome sama taalibe yi moom leen ba lu ma leen digal ñu def ko ni laa moome sama nafs wan qaadalil hawa wani safal janaan la Sëñ Tuubaa wax mel na ni foofu mi ngi ñuy bëgg a xamal ni moom bokkul ci mbindeef yi li ko ber dana ko ber fii ci àddina bay ëllëg yomal xiyaam moo tax mu ne ila yaqaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini képp ko ku ko am cër sax takk ndombal tànk ci àddina ëllëg yomal xiyaam yàlla dina la te teg wàllu yi teg xutbu yi teg yonent yi daal di bakku ba noppi daal ne ana kan ci yéen moo mën a am ku mel ne ahmadu mii ndax ahmadu ku dul yàlla amu ko moo tax sëñ Tuubaa moom rek ka moom moom yi nag li fi indi mbindeef yi da ko fee indiwul mbindeef yëpp dañoo am programme bu leen yàlla tëralal loolu mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni nit ñi maa leen sàkk jinne yi maa leen sàkk xalaxal insaan min solsaalin kal faqaar wa xalaqal jaanna min maarijin min naar fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan allahu xaaliqu kulli shay'in yàlla sàkk ñëpp Sëriñ Tuubaa nee na képp ko yàlla sàkk nag lenn dong la la sàkke mooy ngay jaamu alxuraan wax loolu wa maa xalaqtul jinna wal insa nit ak jinne sàkkuma leen lu dul ngir ñu jaamu ma looloo tax alxuraan di wax ne sanafrahu lakum ayyuha shaghalan fa bi ayyi alaa'i rabbikuma tukazziban yaa ma'shara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan fa bi ayyi alaa'i rabbikuma tukazziban sas wañ leen sasa taxoon Sëñ Tuubaa nee nag loolu mooy mission nit ñi jinne yi man nag sama mission du wàcc ngir jaamu yàlla ngir jariñ déedéet dama ni mbindeef fi dañuy wàcc jaamu yàlla ngir jariñu ci mbirum yàlla jariñu ci jariñ li yàlla doon nak nak mooy annaafihu moy aji jariñ Kudul mom rek yalla lay jariñ kudul mom aji sakku jariñ nga sëñ Tuubaa ne cër boo bii nga xamni ne yalla la nga xamni yalla rek ko mom man bi may wacc ci kaw suuf nak benn mission la am bu doon jariñ mbindeef fi waxuma nit ñi ndax so ne nit ñi bayyi nga jinne te jinne yi lañu wara jariñ ak bayyi may bu doon jariñ mbindeef fi dama fanan genn guddi ci kaw suuf waccuma ngir jariñu dama wacc ngir jariñe walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi lardi يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أما غير الله تتقون وما بكم من نعمة نك فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون bépp njariñ bu tegu seen loxo bu leen xool fu mu jóge xam leen ni daal ki malayka yi sujjootal yaxaafuna rabbahum min fawqihim ki nga xamne wala wu diin wasiban ci mom rek les wara a ko ki mo yor njariñ mom rek kay jariñe señ bi ne mubbu yalla momi bi may wacc dama ko sol mu jot ma sëkk lawla qur'anu wal Qadisu, wa manafihal wara waxul wa manafihal jinna waxul wa manafihal insa wa dani wa manafihal wara Kep ko yalla sak rek sa njariñ may ki ko mom man ahmadu koku wane du def señ tuba momi yi njariñ loli, programme bim mu ci amoon tëralal ko adina moy sababu haybatiya anna allaha araada an anaala minhu akuna shafihan li qawmi wa akuna qadiman fi dawmi loolooy premier programme bi programme boobu nag ngir moom mën leen cee dimbali daa am lu ma yàlla sant ci bi annani qiman wa malazun wa mabdahu faman arada al khayra fi kilti daarayni falyaluz bihi je m'en donne l'ordre de proclamer de dire haut et que je suis l'asile le recours et le refuge képp ku bëgg njariñal adina ak ala ndax yàlla ne manila la nga ma ken do tul ri di fak di dem fenen bu mbindee fi xamone ni fi man dal fu fun doon jublu dañ koy bayyi dañuy samp seenu xel nam seeni tank ngir di wut ci ma man seigne touba ndax lu way di wuti lu mu rek nu ni mi ngi fi fi man te li fi man nag seigne touba mala yaktub wala yanti bal yaarif nee na lu kenn dul xam la neena na mbir la mo xam lu kenn dul jang la neena na lii daal mbir la mom mu mel ni kon ma ngi won ci programme Serigne Touba bi nga xam ni bi mu ci jimmi Ahmadou programme bi ñu teureul wax nañu li ko fi tax wàcc wax nañu mom dem ak adina wax nañu dem ak fi programme mak programme fi bokku ñu ngi fi tinggir wàcc ngir jariñu suñu tuba tinggir don kilen ngir doon ki len di jariñ te jariña mom yalla mom moom yi nag dut waan akuna shafihan li qawmi waan akuna qadiman fi dawmi ñaari programme yep doxal nako ndax liggey la len ci badaw waye jariñ na nak ramuna aw nitam ndax ijhal rujuhi ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamhil khalqi nirana ramuna aw nitam wajhal masiri fawqa hajjin wajahat fil ajri wal yumni wa fi kulli rashad wa fi kulli rashad ramuna aw nitam sama magal gi jëf ci ginar mo upp doole aj gun nangu mo upp doole jihad gun nangu mo upp doole yit umra gun nangu kon ramuna aw nitam ci bëpp fànn waye nak seigne touba daf no xamal ni mom mbiram kanam la jëm ay tanki kanam rek la am te du taxaw xamalon nañu nit it lu mujj mo upp doole wa am su yun si nii bi yawmi wa bi hat darajati ta'nu wa walay sa wa man naha minal wara nañu ni sax ay mindum bu mujj upp doole mu mbind mu mujj bind mooy xaatimatu mën a jaat bel xatti bayit ba mu ca mujj bind mooy bayit bii ma la wax bayit bi nag sëñ Tuubaa tëral ci programme balaa ngay mën a comprendre bayit bi ak xam ci ban ci ban xaal ci ban maqaama la sëñ Tuubaa doon bind bayit bi faaw nga dugg ci biir xasida gi nga xam ni moom la sëñ Tuubaa bind bayit bi ndax mooy xasida gi mujj bind tudde ko sama mujjantalu day yàlla yàlla ci wàllu bind wane ci nag maqaama moo xam ni makam mo xamni ben kep la ndax xam nga mon ko tëralee was wa wa allamaka maa lam takun ta'lam yalla wax ak bi diko wax ni man day allahu man yalla ma la xam ban yow yonent bi ma lo xamni lam takun ta'lam nekk ko won di aji diko xam booba sunu borom di fisal ni ndeke nuru muhammadiya haqiqatu ahmadiya haqiq haqiqatu muhammadiya ñaar yep mi ngi tukki ci allahu allahu moom mii nag na nga yëg ni lepp lu ci yow ci leer mi ngi tukku ci mom sëñ Tuubaa bi jil ayaba aaya nga xamni ca ca ca ca ayaba la ndax ayaba mi ngi tambale wala wala fadlullahi alayka bu fekkul won du du du yalla ak i ngëneelam ci yow top ko ba ayaba jeex nak sun borom ne ko waxal ma lam takun ta'lamu ma ngi lay xamal yow yonenti bi xamal na la ma lo xamni lam takun taxlamu nekkoo di aji di ko xam sun tuba jil bi jil aaya bi di ci bin nak nga xam ne aaya boo bii la tëgge xasida gi ba mu jeex takk araf bu ne dikk na waaw gi ba miim nga ko tëj benn bu ne aw araf la woo xam ne Sëriñ Tuubaa bind na ci aw biit ke waaw nga la tàmbali ñun di wax ak ñun wasalalil xaqu min al xaqil mubiin lii xaada maa baana Beep. allo allo Ibrahima Sall allo ndax Sëñ Tuubaa daa feeñal maqaama mu ne looloo waral ñun murit sax buñ buñ comprendre woon maqaama yi Sëñ Tuubaa feeñal léegi-léegi sunu biir ñun murit yi dinañ waxtaan mel ni ñuy waxtaanee Sëñ Tuubaa yu bari fekk benn Sëñ Tuubaa bi la ñuy wax waaye maqaama yi mu feeñal moo bokkul Sëñ Tuubaa ma doon bind Matlabul Fawzayni ak Sëñ Tuubaa mi demoon ci géej gi ak Sëñ Tuubaa mi nga xam ni moo bind xaatima mun a jàpp del xat yi benn Sëñ bi la waaye maqaama yi bokkul tolluwaay yi bokkul feeñuwaay yi bokkul loolu nag murit bu ko ci xamagul moo tax ngay gis murit yi di waxtaanee Sëñ Tuubaa noo xam ni mooy tax ñuy jàppe sëñ bi ay xutbu mooy tax léegi léeg ñu jàpp sëñ bi ay walliyu te seigne touba wàll lu mu xam seigne touba ko ko amul kenn ko xamni don nga wàll yu ci jébbaloo sa bop seigne touba amul kenn ko xamni don nga khutbu lu may ni seigne touba lay jariñ ajabani xayru bahin fi qataba kulli wa raqaa bi maa liqaada aqtaaba yaxtaadu bi kullu ma raamal kiraamu munal walaahu raqaa bi maa liqaada aqtaaba ay rango ay ay ay wilaya tok moo lem daraja ju wàll yu am mbaa khutbu bu bind na sax ci ak ci téeréem ba di lim xutbu kenn par kenn ña ca man la suñ lim diw ak diw wa xayrihima ak ñeneen ñu dul ñoom tey xutbu kulluhum ñoom ñëpp rusul samay ndaw lanu maa leen yónni woon jamono xutbu lu mu am suñ tubaa ko ko déy njëkkee ab yonent lu mu xam maa ko ko déy moo tax sëriñ tubaa ab ragal mënu koo waxtaane ci réew mii xaju dëggoo gi nag la ne wasalalil xaqu min al xaqi mubin lii xaada maa baana wa maa laysa yabin alxaqu mu yàlla jotale na ma ak dëgg nee na dëgg gi day ëpp si na ci man yàlla jotale na ma dëgg wasala lii alxaqu min alxaqil mubin nee na dëgg jëm ma jotaleel nag min alxaqil mubin ma nga jóge ca yàlla mi nga xam ne mooy dëgg ju biir jë bi dëgg ji ëgg si nag yàlla nekkam gi nga xam ne looloo tax mu tudd al wujud nga xam ne ki ki ki nga xam ne moo nekk yaa zol wujud di la ko Sëriñ Tuubaa di tagge daa am ñeent yoo xam ni nekkam gi mu wutale nekkam gi ak nekkum mbindeef yi ben bi moy huwal awwalu wal akhiru yàlla mo jitu lépp waaye nak al akhir yàlla mo mujju lépp lolo tax mu tuddu al baqa'u yàlla mo mi lépp lu feñ mi ngi tukki ci mom moy al zahiru waaye yàlla mo mi lépp lu làqu it yàlla moy ki feñ moy ki nëbbu ñent yoy yi moo wur al wujub nekku sunu borom gi wutale ko geneen nek ak yeneen yettete yi surtout ne al zahiru mooy li yàlla feñal bi ma jotalee dëgg moom dëgg ko tukkee ca moom moom yàlla lii nag ñeel na ma xaada lii mat na jëm si ci man maa la nga xam ne baana zahir lu feeñ la lu feeñ nag daa yàqu daa am lu feeñ feeñ ci mbindeef yëpp ñëpp di ko gis asamaan si daa feeñ yi saayir la soo xam ne mbindeef yëpp ko gis ndax saayir ak baatin am li jàmme lan na zahiri wa baatini bi tahiri saayir ak baatin rek a am am lu feeñ feeñul ci nit ñëpp waaye wàllu yi la feeñ ci ñoom loola daa bokk ci li feeñ am lu feeñ loo xam ne daa nëbb ci wàllu yi te feeñ ci xutbu yi loolu daa bokk ci li feeñ am loo xam daa feeñ nëbb ci xutbu yi te feeñ ci yonent yi ba la bokk am loo xam ne daa feeñ nëbb ci yonent yi te feeñ ci yonent bi loola ba léegi ci feeñ ci li feeñ la bokk waaye daa feeñ dox diggante yonent bi ak yàlla summa dannaa fata dallaa fa kaana fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa loola am na loo fa feeñ yeneen ci bi nee na ñetti xeet feeñ na fa xeeti xam-xam benn bi laa wextaale mbindeef yi beneen bi ma ma ma ma ko mbindeef yi ñenn la yàlla joggi seen positif ak maamuk yàlla defal leen ko beneen bi sama digg yàlla la yooyu yëpp nag nga xam daa bokk ci li feeñ sëñ Tuubaa nee na mboolem saa yéen ñu ne ah mu ne yàlla wammat na ko min sama biir lu feeñ mat na ko jëm si ci man baatin ba nag mooy lu nëbbu loola moom yàlla rek ko xam suñ tubaab ne baatin boo bii nga xam ne daa nëbbu it nga xam ne mooy baatinu suñu borom ñu ne am ah mu ne loolu it ëpp na yàlla wamat na ko mi ngi ci la ma nii xamal na ma maa kaana qabla al xalqi man kaana lii bi karamin watil xi xamal na ma maa la nga xam ne kaana nekk na qabla al nga xam ne bi fi yàlla rek nekkee yàlla rek bi fi nekkee balaa kenn xam dara da ngay yàlla ba pare motax qasida gi kuko jang xamni ki bind li mooy yalla mi moom bind fi allamani qamalna ma kana qabla al khalqi mom rek fi nekkee la xewon mom rek mu xam ko man man xam-xam bo bi man yalla xamal na mako yalla mom nak man kana nii bi karamin wa tilhi moy ki nga xamni naka jekk daa nek sax ci di nek ñeel ma bi karamin ci ay tedd nga wa tilhi ak di ku ñu boyal ko xamni yalla togg ko benn jëf ko xamni mom fu ko neex jaar kenn ko atté dan lam yamhuni zati lam yanqu zati jalibun nirani aw jalibul harini wal khusrani dal ñett kep ko xamni ne bëgg naa mucc ci jëf jo xamni ni day jëme nit safara sey to nee na ma tegtal la kep ko xamni ne bëgg naa mucc ci gatchek adina ak gatchek alakhirah ñu na mu ne ñaarel ba ñetta harini ak alakhirah ko harini ak lan wal khusrani kep ko bëgg mu ci pertu adina ak pertuk alaxira sëñ Tuubaa nee na boo jum jub uyoog yoyu da ngay ñew fi ci man ndax man lepp luy xamni def la jo xam day wammat nit jëm ko jëme ko ci safan ba ma lepp kep ko xam da ngay daw pert pert ni ko nit ñi ragalé non la ma ragalé ko and ak man do pert adina te do pert alakhirah ko and ak man do jakk adina te do jakk alakhirah waye ko and ak man do ñam safaray adina te do ñamit safaray alakhirah ndax yooyu ni ko nit ñi ragale ba di ko daw noonu la ma rag ñooñu noonu lañ ma ragale ba di ma daw suñ tubaab léeg day waxe waxin woowu xam nga jekki na ba yàgg daan ni naarayni wal xusraani képp kuy daw gàcceeg àddina ak gàcceeg alaaxira suñ tubaab nee na boo boo bëggee juyoo gàcce da ngay ñëw ci man ndax gàcce du jublu fii fi man fépp foo ne gàcce du fa jublu waaye képp koo xam ne perte la ragal perte suñ tubaab nee na ku bañ a perte àddina ak alaaxira rek sëñ bi ne da ngay daw wut si ma ndax perte ci boppam damaa ragal fu ma ne perte du fa ne waaye fu ma ne it gàcce du fa ne fu ma ne moom ndam rek ka fay ne fu ma ne gañaay rek ka fay ne fu ma ne it lu luy ñot day dem ci safara fay daw iblis ak adina ak bakkan ak yoy yep yoy yep dañuy daw fuma ma ne motax serigne touba ku bëgg ku bëgg nam da ngay takkoog sëriñ tubaa moo tax boo gisee ko xamni da japp ni adina liko koy may moy xey di wacc rek tey dajale da xam da ñamagul serigne touba am di jox mo lay may ndam mo lay mussel ci gatte mo lay jox dundu gu teey mo lay jox it dundu gu barkel motax mu ne lam xuni dunya waqtas sanil bi khayri sunya sëñ Tuubaa nee na lam yan xun yi jege muk dararu naru du dararu nari dunya lorut safaray addina fii nag xikama laa fekk safaray adina da am njariñ am lor xam nga safara safaray adina muy tak tak yi ci lañuy ñuy toggi añ ñi reer ci lañ koy togg ñi segg café ci tal lañ koy segg kon tal bi safaray adina am na njariñ waye lor ga nak moy day lakke suñ tubaab nee na àddina ñu ne ah, mu ne du jege mu ko boobu ma ngi lay junj ni ña ko di ko dugal ci ci taal boobu danoo xamul ni safaray àddina lor gum amoon rek du ko jëme ci Serigne Touba waaye mi ngi lay bëgg ni képp ku bëgg a mucc ci loru safaray àddina it na nga ñëw ci man nga xam ni safaray àddina daa bari ay prix loru safaray àddina yi bari ay prix nee na yàlla nag daf maa jagleel mooy nangul ma nim ma nangule moom albaaxi bi xëy sunuya nee na damaa nangul lépp moom suñu borom amul dara lu ma bañal nee na yàlla damaa nangul xanaa loolu dañ ca dégg la sëñ Sall yi waxoon sëñ Béthio ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana la defal ba nga defal ma lii mu ne ko Sëriñ Tuubaa dalaa nangule nu mu mësta nangule kenn sëñ Tuubaa na yàlla nag damaa nangul man sëñ Tuubaa lan la na nangul mu ne mallakan na ma lu toll ni mallakan yi moom loo na ma maalam yi maalam yabi xuxan nii yàlla ma moom loo lool nee na kenn amul njëgam ba mën koo jënd yàlla moom loo na ma ci boppam loo xam du ko jaay ndax loolu mooma moom loo ci boppam daa bokk ci liy dëggal ni mooy yàlla bu ko jaayee rek jaay yàllam bi te yàlla du jaay yàllam ji day day tax koog moom faw loola la mu ne waxaadal yi baqaa ëhoo bil banni yàlla mooma moom loo saxam gi boo déggee ñu naan yàlla albaqaa zul baqaa yi mooy ki nga di ne moo sax sëñ Tuubaa nee na yàlla man lay junj ndax saxam gi lama ma may man sëñ Tuubaa ma moom saxam gi waxaada li wammat na li ñeel na baqaa ëfoo saxam gi saxut yàlla gi sëñ Tuubaa nee na man mii la ñeel moo xam ne wax ji na mu ne bil man ni na nga yëg ni dal yàlla lu ko neex def te loolu def na ko mu doon xiiwal ci man xam nga kon xasida gi jublu ci fii xasida gi waaye xam nga kon xasida gi maqaama mi ko sëñ Tuubaa binde allah gu santi gu tajul motax ci bir qasida gi lay wax ni maxaa mamaatan xat naxaa nufuusa walistiwaaya saafahu tanfiisa nee na dee yàlla du ko bind affecté ko kep ko xam da nga yor bakkan ndax kullu nafsin rek taayiqatil mawti kep ko xam ni yor nga bakkan rek seigne touba neena faawu da ngay dee ak ko meuna doon do na walli yoog doonul xut day faatu yeneen lu mu foor foor day faatu waliyu lu mu foor foor day faatu ku dul faatu mu ne yàlla rek képp ku yor bakken daal ñu ne mu ne di nga faatu moom nag feeñ na ci biir ñu yor bakken jaawale nañ ko ñu yor bakken mu ciy génne boppam mooy communication bi mu ñu mujjee jox nee na yàllaa far ci man nag faatu gi nga xam ne ni da ko affecté woon ci képp kuy mindif yàlla far na ci man loolu na ngi nii daal ilaa siwaaya nax wi na ngi nii dee dee ci jëmmi boppam wali siwaaya saaxu tan fiisa wasaaxahu nee na dee day màng jëm ci kudul man listiwaaya kudul man man daamee nañ koo laaj lu tax doo dee mu ne tan fiisa damaa sell lu yàlla selle sell naa sellaay koo xam ne dee jotul loolu sama sell moo mat dee sama sell nag daa sut daa jomb man Sëriñ Tuubaa may fàttu moo tax Sëriñ Tuubaa nañ ko teg fi ko yàlla teg daa jekk ba yàgg daan yàlla lu mu gën a bañ ñu ne ko mbàkke bokkaale mu ne moo ma tane nee na ni ko yàlla li sebab wax yëg sa bop nak dina ma dal kañ la may dal mo ne bu ñu tuddu nit bi mu tuddu sa bu ma tuddé tuddu keneen dama yakamti sa taxaw ba nga xam man seigne touba duma moromum kenn seigne touba musta di kenn musta bëgg di kenn musta nango di kenn kenn musta santa jiiñ sa bop seigne touba musta nangu yit ñukoy jiñ kenn day ay maqama ba mo ne wa inni ahmadu lil mustafa nawaytumaa yu jaddidu sunnatul xarra wa inni ahmadu kan sakko don nak moy tëjug waxtan wi musta sakko don kenn motax ci ca biir xasida nga eh? la la lam tan huni muqaddamatul mawti wa khadra faqtu bil baqa'i sawti sewti ma jege muko lan mo la dul jege mo ne limit bi mujjee def la muy fatu muy sukurat du ma man seigne touba bay fatu wax gi ma wax ma ngi yëkkati sama tab ci kaw di yuuxu ci kaw ni man seigne touba koy sax la looy saxé mo ne ni yalla saxé lan mo la fatu xana da nga saxé kon yi sax fi yalla sax fële seigne touba ne tursi anil mawti waqaaullahi sax gee yàlla sax ci kaw suuf mooy li dox sama digganteeg dee abqaani allahu li wajhillahi yàlla suy dund man suñ tubaab maay dund yàlla subhaanahu wa taala suy dund maay dund su may dund yàlla ay dund lan moo tax mu ne kafaani yal baaxil mamaata sarmadan wa bi ma iya yasuru ahmadan sax gi ma sax ci kaw suuf nag ci sama jëmm ji dinaa mu ne day mbégum yonent bi yalla da far ci man ak de faw faw la ko la ko la la far ci man ak de mo tax Serigne Touba momi mii mi al aal le Serigne Touba bindee xasida gi lii nag boo ko déggee xam ne rek sax yalla rek mo am al baqaw Serigne Touba jël mu bi yalla sol ko bam bam bam bam jot ku seuk mu bind xasida gi te gis nga ku yàlla déeyoon ku di yu na la xasida gii na ne wa mo ne la mom ngay mujjee bind. loo doon wax ci ay aalo teg ko ci yit sa bopp it di nga ko bàyyi waaye kuñ leen la dëgg yi gars yi ba yàgg nañoo wax maa mën nangam maay def nangam waaye bu ñu demee ba malaaka bi koos leen lu ñuy njëkk a wax mooy damaa aal woon waa nangam bu ma ko waxatee rey leen ma booba damaa tolloon ci bërëb sàngam la ngay mujj def mooy yàllaa fi ne ñun ñëpp ay jaam lañ nañ delluwaat delloo ko suñu bopp te jibbul ko suñu bopp ñun suñu waa ji bi tollee ci communication bu mujj ci wàllu bind la sol mbubb mi yàlla mu jot ko sëkk mu di ci wax ak àddina jottali waxi sëñ Tuubaa nag maanu mooy doo ca yokk waaye it doo ca wàññi xasida gii kenn mësu koo gis gisaale sëñ Tuubaa kenn mësu ta ci saa yi te moo ne boo bi boo gi li la xasida gi di wax li sa bët di tege da koy weddi xam nga ni koo xam ne nee na yii day faatu nee na yii day faatu sëñ Seex Faat takk ko jot nee na seigne Cheikh Fatou Tacko Diop bi seigne Touba yi làqu mi nga am fukki at ak ñett sëñ Touba ka la nekkoon ci biir keur seigne Touba nekk fa ab momisé deggal seigne Touba de bi muy waajal boppam di ya, ah, waajal adina li muy waajal da wa seigne Cheikh Fatou Tacko Diop bis ni tay def lo tuma la dara ci keur gi lu moy ni suma ma gis la suma la soxla suma gesso gis la looloo tax seigne Cheikh Fatou Tacko Diop kaddu gi seigne Touba mudd wax ci ci kàllaamaam nga ci nopp seigne Cheikh Fatou Tacko la na daniko neel sëñ Afe sëñ Afe ne ko mën na jiite julli ba keroog gàmmu sëñ Seex Fatak ko jub nee na kaddu gi sëñ Tuubaa mujjee dugg dugg mujjee ci noppam ci man mii lu tukki te mbindi fox ko ko. na maa ne ko Mbàkke diw saar mu ne ko waaw Mbàkke mu ne ko waaw mu ne ko daa tawat ñu doon sakk ngeen ñaanal ko nee na keroog la gëj teg bët Sëriñ Tuubaa keroog la gëj a wax ak Sëriñ Tuubaa waaye Sëriñ Tuubaa biir kees yënu dugg kees bu ne sëñ bi ko jël caabi teg ko ci ginnaaw tëj ko ci biir jël caabi ji jël ko ci ginnaaw ba muy nombre de bunt yam yam toll nga xam ni waxee nañ ko nu ne Sëriñ Tuubaa du dugg ci biir léegi li defee woon mooy xam sëñ bi fan la duggee ndax loolu mi ngi ko def dibiir waaye ca dibiir ga génnaat na altine bi mu génnee altine ndekki yoo da doon wone tànk yi ngir lan ngir buñ koy seet fu ñu koy fekk Sëriñ Tuubaa waajal boppam sëñ bi fa tàkk jëm nee na bunt bi nga xamee nii fa ko jaarale far ñu mu ne buntu wo ku dul mom mosu faa lu may ni auto dee fa taxaw ngir ngir wajal yëf yoy mi wajal leena da jek baax ñew ci taxaw taxaw ci sakket bi dand sakket bi ñaari meter da di xol digeunte sakket be talib bi nek mom ma ngay wajal programme am woo suñ see faa tàkk jóg daa ne ko leel abla Xaar jog na bëtt fi aw yoon nek yow boba ma ngay programme na bëtt fi na xott fi aw yoon ndax boba lu muy digal Cheikh ibrahim rek alakar Jóob la koy wax booba Seex Ibra Faal la koy dugal la koy digal nee na yoon woo wii bunt boo bii ban ko ma xasee bët ku dul moom jaar fa nee na keroog daa yokkamtal ci perub sàkket bi xool ba gis ba gis mbedd mi li dox diggam ak sàkket bi nee na maa ngi xool diggante tànkam yi la dox yu tedd ya ak suuf sa nekk booba ma ngay waajal boppam sëñ Moodu ñëw fekk lu tëdd ànd ko sëñ Moodu Lamin Jóob Dagana ànd ko ñett ko ko keroog ba ëgg si ba sëñ Modou ëgg si li ko bëtam woon ak li xasida ji di wax ñaar yu bokkul la ñaar yu weddee moo lay wan ni kooku mi ngi lay wan ni ku fiy sax la moo tax Serigne Touba dañ koy teg fi ko yàlla teg boo ko tegee fi ko yàlla teg nag mooy Serigne Touba doo ko waxtaanee ci xutbu moo tax réew mi faaw nu waxtaan ak ñoom ci Serigne Touba daa am wet yu mu nuroon am wet yoo xam ne da cee beru wet yi mu beru nag bokk na ci mooy yii mooy wet yoo xam ne soo ko ciy koo xam ne ku màgg ku musta wax wax yu toll ni yii Serigne Touba wax moo tax moom Serigne bi nag keroog la def lii mu def sëñ Modou xasida gi ba ko ubbee li xasida gi wax ak li bëtam di tege ñaar yu waroo la xasida gi da la nga wax ni du faatu ki la naan du ma faatu moo def lu mel ni ñi faatu li ñuy def waaye déglul bayit ba mu ko tëjee kataballaahu tabaaraka wa taala dogal man ni na la du ma faatu maa ngi fii ak yéen waye nek dama fi nek nak dama fi ndok yalla ndax boba xamal na ni yalla jinnu allah tabaarak wa taala anna kaatiba hadhihi al-huruufi kibin araf yi ngay jàng allah tabaarak wa taala day dekk ak yalla tabaarak wa taala fi dunya ci adina lay dekk ak mom fi dunya ci adina kon ni lay wone ni bi jugul jamono bi amul sëñ bi daa làq jëmmam jë leeram ga nek fële déedéet jëm da dee déedéet fi dunia lay dëkk ak yalla fi dunia bu boobaa nak ñaari mission lay yam fi dafi damay dak wal jal bi ak damay ñoddi lan lay dak ak lan lay ñoddi sëñ Tuubaa ñu xamal kan ñaata ta lay duré mune arbahami atin sanati dana duré ñenti téeméeri at fofu sax leg leg ñu juum fa ko ati adina te sëñ Tuubaa wax li ne wax ji fi ma koy waxe ku dul yalla ko ati adina ku na xam na ni mok ati alakhirah ngay at bis bo jël ci mbirum sunu borom ni ngi fi ci ati adina 50000 mille ans benn bisub sunu borom moo tax yomal xiyam bo déggee ñu la dana diire ñeen fukki at ak dana diire cinquante mille ans dana nanga ben fan lay doon ci yàlla genn dong lay doon ci yàlla benn at ci yàlla mooy firi fi ci ñoom cinquante mille ans sunu borom moo ni xereñi boo jàngee taarixu ashabul këffi xam alam bu ak ak ak at ya fa am sa yaquluna salasatu rabifuhum kalbuhum wa yaquluna xamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil aybi wa yaquluna sabaatun wa saaminuhum kalbuhum xul ربي أعلم بهدتهم ما يعلمهما إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منه أغدا ولا تقولن لشيء إني فائل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب منه ذا رشدا ولبسوا في كفهم مئة سنين وازدادوا تسعا dañoo نرى ci xuntu نوفا يوم من يوم kenn ku ne xool sa bopp màggetoo soppeekoo te waa dëkk ba màgget nanu daanaka seeni sët lañ fa fekk ñu ñëwoo kenn ku ne naan sa morom nañ xool ñaata temps lañ fi nelaw kii ne ko nelawaguñ fi vingt quatre heures kii ne ko demi journée lañ fi jot a nelaw demi journée la ci ñoom te alxuraan nee na trois cent neuf ans la ci ati addina moo tax yàlla ana bu ne ak la fay at moo tax Sëñ Tuubaa maqaama mii mu waxee xasida gi ca la lay xamal ne ndekke joxoñul ati addina yi waaye danaa bëgg xamal ni sama mbir luy sax la maa moom jamono faaw cëru xutboog cëru walliyoog cër wu mën a doon sëñ Tuubaa xëccoowul loolu cëru yeneen te lépp fi ne fii may wax ak yow mi ci sama biir waaye daal tëral la beneen programme programme bu mu la nag mooy fi dafee day dàq day dàq rek wajjal bi it te nee na baax de hësal xatti kon defewu ko ci mbubbum Ahmadu wax na la dama fii sax wax na la fii ci àddina la te maag fii bokk sax wax na la it liy sama mission ci kaw suuf ba ne la baax de hësal xat i gannaaw mbind mi te gannaaw mbind mi mooy sëñ bi daal làkk ji moom kon buñ xamutoon fu sëñ Tuubaa fii ci lambay ñaaw waaye ndiki yu jëmmi boppam ja mbiram ma xam ni yàggoon na koo junj ca wasab leel xil ma saxi xawa amal asaalihal lazi yukammiloon amal ñoo ñoo dajkañ la mooy la ma naaloon programme u dàq ñoddi yeesal indi lu amutoon fekk mbir bi fam tek won nga jële ko fam tek won yobbu ko fum ma sag programme bobu bepp maa ngi koy defé ci jëmmi salihu ndax lan ndax fi ma toll ci allahu man rek ka mën a siin saalixu afaaliya sirral ma soon allahu waaye xubban wala ilaha illa allah nek yo Sidi rafal Fall junjoon nañu loolu bam feeñalee seigne touba ci programme bu njëkk ba jotoon nako feñalatal mouride ci programme bu mujj bi dañ ko nanguutoon tonu deg ndax da dajik serigne salihu dat ne yëkkati ko ñetti yon tek ci dënn bi képp képpil ko daat ne daje gii ma dajeeg Serigne Saliou wuutewul ak daje ga ma daje woon ak Serigne Touba ba ma koy wër ba dajeeg moom ca Mbàkke Kajoor Cheikh Ibra Fall du jaawale daje képp nag Serigne Touba benn daje képp la. Mm. waaye deuxième programme bi nag ku ci Serigne Saliou boolewul bokkoo ci. ñun lay suñ taw féex dañuy sëñ Bàccu ñi la topp ma jàpp ñu ñoo la jënt ba topp la seex bi ne ko déedéet Mbàkke Serigne Saliou ne ko lépp sama jubloo kon ñun moonu boole ci du programme bi. waaye ñun ñu ci boole bi mu ñun leen am ñun rek la ko Serigne Saliou defal xam nga ku Serigne Touba di wax ci sa Serigne lolo yombul jëmmi Serigne Touba di wax ci sa Serigne wax ci it wax yu ni yim ci wax ñun rek ko am ndax nun suñu wax lu mu reere rëy rëy ci ñun da tukke ci Serigne Saliou ginnaw bi mu ne lin qadatil ujur wal masalihu bi tayyi wal jazbi wa inni salihu diglul waxin mi de mboolem lu doon jariñ ci yalla mbooleem lu doon payoor ci yàlla mbooleem luy ujuur nga xam ni yàlla ci lay fayee képp ku muy fay mbooleem luy masaalix nga xam ni yu baax yee te yàlla yëpp bi ndajee yooyu yëpp nag bi ndajee Sëriñ nee na bañ ëgg si ujuur yëpp ëgg si masaalix yëpp ëgg si nga xam ne ujuur yi ci la yàllay fay julli yi ci la yàllay fay woori ci la yàllay fay natt asaka yi ci la yàllay fay wëllu yi ci la yàllay fay xutbu yi yeneen ci ci ujur yi lees leen di fay sëñ Tuubaa nee na ujur yooyu yëpp egsi na ci man bi ujur yi egsi it masaale ci egsi bi egsi nag ca laa soppi tur soppi melo soppi jëmm soppi doxin nekkat ci beneen aalam bu yees beneen maqaama mu yees fas yéene génnewaat mbir yu yees sëñ tur la sëñ Tuubaa jëmm jël koo xam ne boo ko jàppee tudd murit boo ko boo ko noppee jàpp noppee tudd murit buñ lay woowee murit moo tax ku ñu woowee murit Sëriñ Tuubaa tax té ak mourid borom mourid mom néra man taxawuma damay dem kon mourid bu andu ak borom mourid di dem ak murit dana la raw serigne touba nak ci ñaareelu programme bi dañu fi def xewal jël bi damay damay dakk rek tay tay tay tey ñoddi waaye lan lañu dakk ak lan lañu ñu ak fu ko dakk dakk ga ñoddi ga nak mi ngi ko def ci serigne sallu moy muy asaalihu alladhi yukammilu al amal na waxon na ni moy motali samay def te def yi dundoon nañu ko ci ñaar moy matal def yi day dakk tey tey tey tey ñoom lu ñuy dàq nag lu fi nekk la nit ki yow sëñ bi lor la ñuy dàqal mariwaana jéng yuñ téye woon yooyu bu ko Serigne Saliou dàqutoon ñun duñ bokk ci yoonu murit li ci njëkk xam ne mooy jàngi tubaab doonu murit Serigne Saliou ko dàq bu ko dàqutoon ci yeesalam gii ñun du mu dugg ci ci ma ngay dàq ma ngay dàq waaye ma ngay ñoddi lu ñuy ñoddi nag lu sori woon la nekk njariñ dañoo sori woon moo tax dañu dama leen di ñoddil njariñ te di leen jañal lor lu ñuy daq lu jege la waaye lu ñuy lu ñuy ñot ji loolu lu sori woon la sëriñ bi ñoddil ñu ko te ñot dem nga ba jot lépp ca la ñu ñoddi le ngërëmul yàlla nga xam ne naroon nañoo dund ba faatu te duñ ko am te ñot dem nga la ñu ñoddi le ngërëmul yàlla waaye bi mu ko ñodde it ñoddi lu ko ñëpp déedéet da koo ñoddi ak ko ci dëgg dëgg jëmmam moo tax mu ne sëñ bi ku jébbalu ci yow am ngërëmul yàlla dëgg loolu ca ñoddi njariñ la ca la ne sëñ Béthio ku la dem àjjana ku la xam dem àjjana muy Serigne Touba tey tey tànk kanami Serigne Touba te ñot dem nga ca la ko ne ku la diisati ko ko fajal ndax jox naa la kun fa yakun ca ñoddi nga ca dem nga ca la ni sa guddi gu def naa ko muy Laylatul Qadr ca dem nga la ni ko defal naa la dawam sukuri ca ñot dem nga ca la ñot dee ñoo xam ni danoo naroon a dund ba faatu waxuma la dem ci yàlla waaye àjjana naroon nu ko war a am ñu jébbal lu tey raw kun wartoon a raw mën kun wartoon a mën gën kun wartoon a gën ki jaar ci yoon wi di seen ngërëm di ko wut ba karam muy faatu te amu ko Serigne Saliou ñot dil ñu ko jàppandalal ñu ko ci jébbalu ci Serigne Béthio tey am ngërëmul yàlla tey moo tax ñot dina na te lam ñot di it ëgsi na loolu waral màggal gi mën a toll fii mu toll nga xam ne ay gitti nag fu mu xewe ci yeesaluk Serigne Saliou la xewe loolu lépp nag boo ko dajalee bis bi nga xam ni mbooleem lu ñu suñ Saliou ñoddil ci la ko ñoddil mbooleem lum ñu jañal ci la ñu ko jañal benn bis la mooy 17 avril moo tax ñun cantakoon ñun ñim booleeg sëñ ba noppi jël responsabilité ni moo ñu booleeg sëñ Béthio sëñ Saliou woo booleeg ku ne ku ne waaye dañuy sëñ Béthio ñi la topp moom mu ne amu ne ko sama jubloo kon ñun moo jublu kenn du suñu sëriñ sëñ Béthio suñu sëriñ sëñ Béthio mii suñu sëriñ it moo jublu ci moom ne ko yaay man ma yow ñuy lenn ñoom ñaar bi mu ko ko waxee ba noppi sëñ Ablaat kenn gënu koo xam sëñ Saliou kenn gënu koo xam sëriñ Touba moo xool sëñ Béthio moom doy ko nekku sa xol bii kurul sëriñ Touba nekku ci sëriñ Touba sa deret gi sa yaram wi sa cër dañ cee mooñaal ne sëriñ Touba koo gindi ci moom deret gi génn ci moom ci yi génn ci moom xol ba la koy des laa dul xam moo tax booba sëriñ Saliou la koy junj ñun ñun ñii ñoo am loolu ñoo daje kooku ci kaw suuf ñun bi sëriñ Touba duma faatu it mënoon na làq jëm mbaa mu feeñal ko fo xamni ne dañuy ump ba yamal xiyam waye ñun ñii ñoo daje jëmmi Serigne Touba ci kaw suuf waye Serigne Touba tay nak waxon nañu programme lim ñu ñoddil ëgsi na te woor nañu ni bu ñu ko ñoddil woon loolu yi du ëgsi waaye lim ñu dañal ñu nekk ko daan dem ci yalla da ngay xiif ak mar mu dakkal ñu xif dakkal ñu mar da ngay lekki tufe ba suur di sañ sey soli jëg neer ñi wër adina ya leen di gënal adina te ñi wër yalla ya leen di gënal yegg ci yalla ñaar yoy dañu waro diut atina am ko di yalla am ko ñaari waroo la ko dan suubu ci yoon yalla di doxal buñ la xolé do nuru nit dañuy xamni yow da nga da nga fe ba adina top yalla waye am yalla ba téye ko ba noppi ñi adina nga gën leen ko am lolu ci yeesaluk Serigne salim la xew motax tax yoon wi du yoonu tasawuf ni Serigne salim andi du mbirum tasawuf tasawuf dañuy xifal sa bok di lekk xop di dem ci àll ba di noot sa bakkan di ko tarbiya di wor bay bëgg faatu yooyu yëpp daa dëppoo tasawuf waaye nun dañuy lekk bu suur lekk gi muy ak cant bernde yi ngay bernde woo di ak leer di dugg ci yow nga boole ko di dukkat boole ko boo gesoo ami soxna soxna yi ami borom kër boole ko ñu lay daggali pàkk boole ko ngay mën a liggéey ba noppi nag ñiy wut yàlla nga gën leen a am yàlla ñor dëgg Serigne Saliou tax mooy yeesalam kii loolu ñu yi mooy góorgóorlu wax sabu wax sa xool te daw moo tax loolu yi moo nekkoon suñu waxtaanu tey fa la ñuy wàcce suñu kaddu tey ñaan sëñ Béthio suñu yaakaar yi tey ëllëg mu yàgg fi loolu